kon mi ngi noonu jërë ngeen jëf mbokki internet allo Sénégal tey alhamdulilah rabil alamin la ñuy waxaat ndax gannaaw ba ñu bëri doon ñu ko laaj ñu bëri doon wax fan la nekk indiwaat nañ ko seetsiwaat nañ ko seetsiwaat nañ borom xam-xam bi seetsiwaat nañ kilifa gi seetsiwaat nañ tamit borom bagage yu yéeme yi muy Thierno Bocar jàlloo li tax nag tey ñu seetsi ko sénégalais ñoo ñu ko doon laaj boobu ba léegi fan la nekkoon ñun tamit boobu ba léegi ñu ñuy wax ñuy teg suñu loxo ni dafa génnoon dafa génnoon dafa génnoon waaye tey xëy na dikk na moo tax ñu seetsiwaat ko déplacement euh, heure bu ñu koy def pour ñëw ci moom mën naa ne essence sax dañu ñu koy jox ndax sénégalais ñoo soxla xam-xamam sénégalais ñuy bëgg muy génn di wax saa su ne ndax gis nañ miracle yi nga xam ne mi ngi koy def balaa boobu dañuy waxtaan ak moom ci actualité lu ci mel ni Ousmane Sonko génn bi nga xamante ni génn dugal nañ ko ci autopolis bi génne ko dugal ko ci këram par force lan la mën a def ci Ousmane Sonko ci yàq ko Mame Mbaye Niang fan la avenir politique am ndax Macky Sall daf ko nara samp moom moo tax mu yëkkati dossier bi lu ci mënti am sëriñ bi na ci def ay révelation sëriñ bi dina def ay révélation tamit ki nga xamante ni moom mooy dox ci làmb ji gis ni rëg-rëg Sa Thiès ni nga xamante ni làmb ji amee na ko ampleur ñaari mbëri ci ci li ñu jot a dégg am na ku am na ku fi ñëwoon pour seet si sëriñ bi waaye sëriñ bi tamit dafa mel ni làmb ji dafa gis ni muy demee moo tax nañ waxtaan ak moom ci actualité nañ waxtaan ak moom sax ci xam-xam xam-xam boo xamante ni dañ fay gis tey ay bagages yu bees tàq yoo xamante ni sëñ bi xëy na fam demoon la ko génnaale waaye balaa boobu dañ koy bàyyi moom Thierno mu nuy mbokki internet yi nga xam ñoo koy seetaan cheikh bi bismillah asalaamaaleykum wa rahmatullahu taala wa barakatu mhm. bisimilla maa ngi leen di nuyu di leen sant di nuyu di leen ne bisimilla yéen ñëpp bisimilla mhm. fii seen kër la bisimilla bisimilla waaye noonu kaw ma nan ngeen def boo ngeen boo ngeen kam génn naa noo leen def ba ngeen ñëw fii ci kër bi boo ngeen kam génn naa. ñun mhm. ñun ay agent secret lañ am. Mhm. loolu daal laa lay wax yëg nañ ni da ngaa génnoon dem tukki ñëwaat moo waraloon absence bi wala lu xewoon. waaw bi ma nekkee fii yëpp tukki wu ma. ah tukki wu ma damaa nekkoon ci ay wird su may def wird yooyu noonu liggéey la ndax suma taalibe yi ñi nga xam te ne dañoo dama aadanteeg ñoom jox leen aadi si seen soxla. Hmm. damay faj seen soxla bu ma koy faj. damay bàyyi liggéey yu ma doon def yëpp ma tëju mun naa tëju weer mun naa tëju ay fan liggéey bi soxla yi bu jeexul. waaw du ma génn. ah jaral na ma boo soxla bi mu jeex bu dee weer la bu dee at la soxla yi bu jeexul du ma génn loolu moo waroon ma tëju kenn mënul woon jot ci man ku ñëw da ngay kaar bu ba lu may def yëpp mu jeex boo mu indiloon kaalis bu dul jeex tamit du ma ko jël nga ti doo ma gis. da ngay eh. kaar soxla yooyu yu ma jël ma ne dama koy faj. yooyu suñu jeexul du ma génn maa ngi woon fii damaa nekkoon ci ay wirdu damaa nekkoon ci ay wirdu foofu kaw ma ko ni man kaw mu fenn dul fii allah ah, bismillah waaye sëñ bi dañoo ñëw tey fekk fi xam-xam bu bees mu mel ni da ngaa changé waat mbir yi gis nañ nga yokk ci nga yokk ci bagage yi benn pitax bu weex tàll mel ni am am na lu dox sa diggante ak moom nga koy yónni muy dem ngay wax ak moom sax daanaka lan nga ñu mën a wax ci pitax boobu noonu ngir ban liggéey la. waaw lii ci suñu xam-xam la. pitax bi nii ñun dañu koy donn si suñu xam-xam la bokk. waaw lii xam-xam wàllum am-am la. ci wàllum wërsëgu ubbeeku. Hmm. gis nga sangat bu ñu defar noonu. waaw bu ci naanul. Hmm. sangat bi baaxul. dit waay sangat bi ku nit ki nga xam te ne yàlla nar na defar say kabaar. Hmm. kuy kabaaram nar a baax dëgg dëgg dëgg dëgg moo koy sang. bu ñu defaree sangat bi pitax bi bu ko naanee. Mhm. mooy kam ne ne sa kabaar baax na. te léegi bi nga defaree affaire yi na ko dafay naaw fépp li nga xam ne jublu nga fa ci àddina di fa ut dara da koy am. sa wërsëg dafay circuler ci àdduna bi yëpp fépp fi nga mënta dem ci àdduna sa wërsëg ngay àndal pitak bi bu naanee bu sëggee ci garab bi mu naan ko waaw mu sëggaat mu naanaat nga xam ne garab bi jàpp na bu bu bu bu delloo garab bi ne bugg ko tan xamal ne garab bi jàppul waaye bu naanee ci garab bi xamal garab bi jàpp na waaw ah, loolu loolu loolu dina naan ci garab bi ngati garab bi dafa jàpp lii ko am wërsëg dëgg dëgg dëgg ku yàlla na a baaxal kabaar moo koy sangu ngati boo ko sangu ñàkk woon na la ginnaaw lu des si sa adduna mm-hmm. dootoo dootoo ñàkk sa kabaar dafay ubbeeku loolu moo nekk li ngay gis noonu ci pitaat bi sangat bu mu tiim noonu mm-hmm. loolu moo loolu njëriñ boobu lay def waaye dafa am sangat boo xamante ni ba nga koy bind bindee ko yaa ngi koy yaa ngi bind mais bindeewoo lu mel ni daa daa lañ xam ci li ñuy bindee am na leneen benn matière booy bindee sangat yooyu noonu bur lan la. man damay binde lem. damay binde lem. damay binde daaka am na ay garab yi nga xam te ne ñu ngi ci àll bi tamit boo ko boo ko boo ko boo ko goree jaasi wala semmin. Mhm. day am day jooy dafa am lu muy génne. loolu tamit dama koy def ci butéel di ko bindee. nekkul noonu damay wax ndax addina bi poli su ma mbokk poli kam nañu. Mhm. suma mbokk pëli suma dëkkandoor mhm. ñoom xam nañu mhm. soxla yàlla dimbali lu ñu ko neexee lañu koy fajee eh. ngati dañuy jox liggéey bi ak kam waaw ngati ñun loolu kes lañu kam amul leneen lu ñu kam sàmm béy liggéey sunguf jàng alquran binda loolu mooy lu ñu kam kamuñ leneen ci loolu rek lañu nekk mooy lu ñu kam liggéey nag lépp nit yàlla lu mu wax boo jaaree fii dinaa faj soxla boobu noonu mhm. yow kay yow yaay taayal nga bañ a jaar waaye boo ko joxee ak akkam nga def yàlla lu mu wax dina faj sa soxla. yàlla boo defee lu mu wax bu nee boo defee nii faj soxla bii dinaa ko faj boo defee noonu mu faj soxla boobu. waaye sëñ bi dañoo yàlla du war nit. dañoo yëg ni bi ngay jàng xam-xam da nga génnoon réew mi dem jàng lu mel ni fétiche dem jàng lu mel ni fétiche te bi nga dikkee yaa ngi ci doon def ay miracle est-ce ji yaa ngi li jëfandikoo yooyu fétiche yeeg yooyu noonu donte que yaa ngi koy jàngale sax gis nañ ni yaa ngi koy jàngale mais est-ce que yaa ngi def ay fétiche boo nekkee doomu sëriñ. Mhm. da ngay jàng lépp nga toogaale ko. waaw man lépp luy nit di jàng ci xam-xam jàng naa ko. sonn na dem naa fi ay Niger. Mhm. dem naa ay Burkina. dem naa Masina fu ñuy wax Mali. Mhm. dem naa fu ñuy wax gine boobe jàng naa fu nekk ci àddina bii maa ngi wër kam-kam sonn naa ci béy naa ci sonn naa ci lu nekk ci àddina daj naa ci loolu nag lu ma doon wër ndax tey la woon ndax tey la li ma doon wër am naa ko tey moo waroon tey moo waroon ma koy wër gis nga nit ñi ñu ñëw fii nii. waaw ñëwuñu fii ndax kër bu rafet. ñëwuñu fii ndax oto. Mhm. ñi ngay gis ni ñuy ñëw di ma di ma di ma béyal. di yëkkati seen alal di ma ko jox. di di ma yëkkati seen i nag di ma ko jox. Mhm. samay mbokk pël yi ak nit yëpp ñuy ñëw fii. lan moo waral ñu ñëw fii xam-xam. bi bi ma uuti woon moom moo waral ñu fi ñëw sax nag ngay laaj. nag am na weekal yi nga xam te nag laa lay laaj nga jox ma nag su mbokk pël yi da nga gis nga bi nga ñëwee fii ba léegi ñu ngi takkaay nag di indi. ñooñu yëpp su may mbokk lañ su may mbokk pël lañ ñooñu ñoo ma gën a gëm waaw man li ma am loolu ñoo ñoom gën ñoo ma njëkk a gëm su ma mbokk ak su may dëkkandoo ñu ma bokkal fii ñoom ñoo ma njëkk a oh. man du ma laal dara lépp ñoom ñoo ma koy defal loolu noonu sant yàlla la lépp lu ma bugg ñoom ñu ngi ma koy defal beneen nit bu ñëw da ngay ñoram faj sa soxla waaye nekkul alal maa ngi koy am maa ngi sant yàlla kër gi ni mu yaatoo taalibe yi ni ñu bëri te kenn du fay man suma taalibee mu ngi nii am naa lu toll nii ñaari téeméer taalibe kenn du yelawaan te kenn du fay tamit. man ku ñëw dama lay liggéeyal boo nga gis nga toog a fay soo ñëwee suma kër nga ne ma liggéeyal ma. waaw dama lay koolal ma xool lu nekk ci yow yëpp. waaw boo ma koolee boo xam lu nekk si sa biddéew yëpp ma xool ba mu kam. Mhm. ma nee la lii ngay fay teel sa alal ma liggéeyal boo nga gis nga fayam. allah loolu amatul sëñ bi waaw man dama lay liggéeyal boo nga gis neuf jours. neuf jours yi doo ci génn résultat bi nga gis ko soxla bu mu munta nekk noonu. moo tax kay su ma la koolee bu ma xoolee ma xam ne ne mun naa. ma nee la mun na su ma munul noonu ma nee la munuma soxla bi demal fale la soxla bi di fajoo dama lay wax sëriñ buy faj sa soxla su ma xoolee ma xam ne munuma faj sa soxla mhm. dama lay tegtal ma la sëriñ buy faj sa su ma lay liggéeyal na ma liggéeyal ba nga gis nga doog a fay bu dee mun naa faj sa soxla waaye ci neuf jours ku wax pël wax reen wax xaatim wax lu wax lu mel ni sax sunguf bëri na sunguf yoo xamante ni yaa ngi ko yor fii nii di ko di ko liggéey gis nañ ci benn benn leket boo xam ne yaa ngi ci def ay seetu ay pettaw ëw ko ba mel ni lu téere yu xonq ak lu kenn xamul nga dugal ci benn garab di ko di ko di ko di ko jat di ko yëngal di reetaan mu mel ni sunguf soosu daf danga nga koo fonk loolu tamit. waaw lii nii lii mooy locide. Hmm? pël yi xam nañ la moo nekk locide. lii nit bu nekk ci jafe-jafe. ki nga xam ne nga dem nga boo découragé si sa adduna nga yaakaar ne dootoo amati mhm. yow sa adduna yàqu na dootoo nekkati nit sa kabaar yëpp nga découragé moom la ñuy sàng li ma indiwaat ko ci ay nit ba mu jiituwaat mais bi nga koy defar yaa ngi am looy jat di waxaale di reetaan sungu boobu loolu la sungu boobu reetaan la àndal ah. bànneex tan la àndal nga mbiru bànneex la lii bu ñu ko doon def dañu doon ut ay kalamkat uh-huh. ay kalamkat ñuy kalam di ñu wóyal ñuy defar sungu bi nga di banneex la àndal boo ko sangoo nakare aduna weesu euh, won na la ginnaaw won na la ginnaaw yàlla day ubbi sa kabaar yëpp loolu moo war a ma ne la ku gën dem ba découragé laa ci bu mhm. mais tamit dafa dend ak beneen boo xamante ni <coughs> yaa ngi ci bàyyi koog bi boobu tamit pour lan la loolu cat lay itit ki nga xam te cat dafa la jàpp mhm. yàq sa kabaar yëpp nit ñi sëñ bi ki nga xam te cat moo gën a bon loo gis ci àddina nit yu ñu liggéey ci àddina bi mun nga leen compter liggéey bu wirdu salaatul faa faati génne bu léegi wird liggéey lu muy jàpp nit bëriwul. Ah. kon cat daal moo sonal. cat moo sonal nit ñi ñu jëm. ñu bëri cat moo nekk si ñoom moo leen di indil gàllankoor xëy léegi yaa ngi amoon ay teeranga amoon alal yëpp mu kale. Mhm. nga delluwaat ginnaaw ba torokaat. ñëpp ñi nga xam te yàlla doon may dangay dellu di toppaat seen ginnaaw. adduna bi yëpp won la ginnaaw loolu cat rek moo ko mën a def ci nit. nga jënd oto bu bees nga génn léegi nga askitante ci Oh. léegi léegi nit yi yëpp di la tudd nga am gàllankoor mu naa diw dee na cat moo ko mun a def mun na la jox feebar nga xam te ne dootoo wérati cat moo koy def cat moo gën a bon ci nit man dama koy seppi ma dindi oh. gis nga kii nu mu lay jame noonu ñu dindi kii bi mm-hmm. man noonu lay def cat dama koy seppi dindi ko waaye am na lu ma la bëggoon a laaj di nga ni damaa sob waaye baax na dama gis ni kër gi macha allah yàññ na oto yi bëri na kër gi am na courant mais liggéey liggéey yi ngay def néeg bi nga koy defee nangu boobu ba léegi ñu taal fi làmp li ngay taal moo di ay sondeel waaw léegi bii nii làmp du fi dugg du ma fi taal làmp ay sondeel laa fi taal sondeel yi nii du fay dama kaa donn ci suñu maam lii si suñuy waajur la ku toog ci palaas bii nii mhm. sondeel yi du fay sama maam mu ngi fii mu ngi dund am na téeméer ak ñett mag la kilifa bu mag la mhm. pëli yëpp xam nañ ko mhm. kilifa bu mag la ci li may liggéey ni ci moom laa moom ci moom laa ko doon mhm. moom place bii ni moom moo fi doon toog léegi nag moom mu ngi ci dafa bàyyi lépp mu nekk ci digg àll bi foofu la am kiram kenn du fa nekk su dul moom kese ak taalibeeyam yi yu góor kese ñoo fa nekk foofu la nekk di jaamu yàlla di wirtu soxla bu ma jaakalee dëgg dëgg dëgg dëgg mhm. moom laa koy dem woon ko soxla bu dugg noppam yàlla faj ko allahu akbar man li may liggéey dama ci am garanti ah, moo waral su ma lay liggéeyal dama lay garantil dama lay liggéeyal ba nga gis nga fay dama lay garantil teel sa alal ma liggéeyal ba nga gis nga fay nga xam naa ne dinaa la li ma lay defal dama dama kaa mun te li ma lay defal yàlla dina ko faj boo nekkee sëriñ tey wóolu nga sa bopp mhm. bul ne taalibe indil sa alal ma liggéeyal da ngay wax teel sa alal ma liggéeyal ba nga gis nga fay nga loolu mooy liggéey sëñ bi dañ ni fas moo gën a yéeme tooke fas moo gën a garaaw ci li ñuy liggéey te moo gën a gaaw léegi léegi dama gis nga am yoo xamante ni yaa ngi ko doon jat di fas di jat di fas waaw lu loolu ay kabaar boobu noonu. Mhm. kii nit bi nga xamante ne yaa xam sa soxna la. waaw yaa xam sa borom kër la. yaa xam da nga kaa sikk ak buur nga bugg mu loo ko wax mu lay déglu. noob la daanaka. nopp la kii ku nekk mun nañ ko ci jàpp. yaa xam tuubaak nga yaa xam nit bu ñuul nga yaa xam jullit nga yaa xam chrétien ku ma ci fas dama lay jàpp ñetti fan laa koy tàmbalee. ku nekkoon nit dafa laa woon ginnaaw fukki at. xamatoo numéro xamatoo fu mu nekk boo koy fas de yàlla na fekk moom mun na am sa numéro gati bu munul am sa numéro mun na dof nii hmm? waaw munul nekk 24 heures déggu la téléphone wala gisul wala xamul foo nekk. fas bii ni loolu lay liggéey. lii li dama ka jàng foowee ko man lii dama ci doon damm ay fas. fas yu ñu dawal course. waaw dama ci toog nga nga ma fas sa fas si sa tuur lay jaar. sa fas muy daw ma jaar ko si sa tuur ma fas ko fas bi daanu damm. laa du génn sama kër fas bi day ñëw taxaw suma kër mun a fexe ba mu génn kër gi. Hmm? muy jigéen boo takkoon jigéen. waaw nangul toog su ma la ci liggéeyale hay boo dee du am beneen ci kër. sa borom kër bu demee ba mu tex la munoo tur ci moom dara suma ko ci fase yow boo génnee adduna moom du indi beneen jabar. lu mu xam dina la ko wax ci addinaam. nopp gi moo gën a wér lii waaye du ma ko defal ki nga xam te ne nekkul kuy kuy takk jabar wala koy ut soxna. Ah. du ma ci liggéeyal kenn lu jëm ci caakaan. Mhm. su mu kabar caaxaan nekku ci. gis nañ seetu boo xamante ni teg nga ko fi waaye du pour seetu wërale nga ko ak ay garab wërale ko lu ne ba pare jaaxaanal seetu bi mu tiim asamaan. lii nii ci moom laay seetee. lii bu ma xëyee suba. ni nga koy xoolee gis sa bopp noonu nga gisee nit. lépp lu ci yow su ma ci tuflee su lépp lu nekk ci maa ngi koy gis mun naa la wax ba wax la yére bi nga sol ma la fi nga taxaw ma wax la sa tur wax sa tur njaboot. ci seet bii nii. ay moom laay seetee. damay seeti suuf damay seetee ci ci jaww bi damay seeti ci ndox seet yi bëri na. mun nga ma woo léegi fekkee maa ngi tiim lii. mu wax la sa tur wax la sa tur yaay wax la foo dëkk mu wax la sa yow yaa nekk kan mu wax la boo wax la li nga sol. kam kam bu la nekk waxee kam kam amul. Mhm. dafa ci sonnul wala donnu ko wala fekku ko wala moom amu ko kam kam dafa am. boo gisee yenn a ma nangul leen lii yëpp. ndax dafa am ñuy jël kam kam di ko yàq. damaa war a xamal nit ñi nag xam-xam am na ñu koy yàq ñun bokk ñu ci mhm. ngati amuñu leneen ñun tuddul lii moom lañ donn mhm. lii ñu ko pertee desetuñ dara mhm. ñun lii la ñuy tiitro moom la ñuy ndam moom moo nekk lépp lu ñu ad moo amul dara lu ñu koy lu ñu koy tollool ci àddina ginnaaw jaamu yàlla ñun lii lañu am te moom tamit ci la ñuy jaamu yàlla ngat ci la ñuy faj aaju nit ñi ñu naan la doomu jox dërëm ñu faj sa aaju sëñ bi ci yax bi laay daane leen ndax yax bi heure bu ma ñëwee <coughs> ñu ni ma foog nga foog leeralaat ci yax bi waaye damay wax ci béjjën bi te am na béjjën boo xamante ni fekk naa ko fi béjjënu nag la béjjënu xar la béjjënu lu mu doon nga ëw gi béjjën bi nii ak lu weex ak morso xaw lu mu doon noonu tamit yax bi ni waaw yax bi yax bi yàqu gëléem la lii ci dëju kilifa kilifa bu mag mag ko xamante dafa am tuur kilifa la boroom xam-xam tamit sëriñ lay nekk borom xam-xam mhm. ci ci ci dëj bi ci la ñuy dindi yax bii nii yàq bi dafa am fu muy nekk moom la ñuy dindi bi soxla nit bu nga xam toon da ngaa nekkoon yaa xam woykat nga woon yaa xam da nga doon def politique yaa xam loo nekkoon nga fay ba kenn déggutu la ci addina bi. abu ci wàllu. boo fayee ba kenn déggutu la ci bi. waaw yàq bi moom laa lay sampee. la moom laa lay sampee ba àdduna bi yëpp dina la déggaat di nga gën a kawe fi nga nekkoon ci yàq bii nii la. sëñ bi am na ku sama xel dem koo xam ni fayoon na mais jamono ji jug na. nit mm. ku du dafay jaar. mag yow ay wax nag. sëñ bi fii moom ñu fi ñëw man dañoo bëri kaw ma seen tuur fii noonu kilif mu nekk jaar na fii. koo kalaat ci àddina. waaw kilif mu nekk jaar na fi waaye du ma wax tur nit du la wax yow tamit nga filmer nit yéen gis ngeen kër gi gis ngeen oto yi gis ngeen nit yu fi ñëw. waaw am na ñi nga xam te ne da nga leen doon gis noonu rek waaye tey fii nga leen gis ci kër gi. waaw loolu yëpp sant yàlla liggéey la rek. te ku fi ñëw nga def ko taalibe man sëñ bi man loolu tamit jaaxal na ma sëñ bi lu tax yow xàmmeewu autorité yow ku ñëw nga def ko taalibe tamit sëñ bi. fii ku dugg kër gi taalibe rek ngay dekk. déedéet mais mais am na ñoo ne ay autorité lañ ay waaye man su ma man su man man su ma su ma kam-kam bi. yow ni nga doon kee di boot sa sac di dem école. waaw noonu laa doon kee jël suma pot di dem yelawaan nekk taalibe. non non même bu dul autorité yow dangaa dangaa dangaa jàng foofu bu am diplôme. man ma jàng fii bu am fi diplôme du ma jël sa diplôme bi teg ko sa kaw sama kaw diplôme bi. mais tey waykat autorité laa ko mën a wax xam nga. parce que kilifa la. ñooñu ñëpp man ku fi ñëw man maa nekk sa kilifa sa kaw. waaye ku fi ñëw dinaa la jox cër dinaa la jox li nga moom li nga yelloo li nga fi ut li doo ko amee ci alal kese da ngay sonn balaa nga koy am nga ti man damaa sonnoon ma jot ko ah. damay dégg sëriñ su bëri di yëkkati Aliou xànjar tey ma gis fi Aliou Khandiar boo xamante ni nee nga nee nga sax li nga koy laal bëriwul ndax. nit waxagula ndax nit bëriwul luñ lay di soxla boo xam ne laaj na ngay jël Aliou Khandiar bi di ci liggéey dafa mel ne Aliou Khandiar boobu noonu li nga ci liggéey dafa garaaw de kon. boobu noonu su ma ciy liggéey dama koy tàngal boobu noonu day fekk léegi léegi léegi léegi léegi nii soxla bu gaaw gaaw gaaw gaaw mënul fanaan. comme ku war a tëj léegi nii. léegi nga xam te dañ ko war a tëj. wala léegi léegi nii nit dañu ko dakkee dindi ko ci palaasam dindi ko foofu noonu wala léegi léegi ku nekk bitim réew am jafe-jafe sa tuur lay bind ma bind li may bind ci àllu bi ma teg ko ci ci ci ci safara ma tàngal ko su ma wirdee mënul nekk 45 minutes sa aajo fajawul. la loolu noonu lii maa ko tuddee jooni jooni ku fi ñëw ne ko hmm. jooni jooni la tudd kon. liggéey dafa am yoon. wax naa la waxaan naa la ku la nekk xam-xam amul. Mhm. dangaa nangul sonn. nangoo jaar fii xam-xam bi nekk. Mhm. lii àndul ak taal kilim tëdd àndul ak oto bu rafet. Mhm. àndul ak yére maa ngi nii lii laa yor wala lii laa yor mhm. lii ci coono la àndal nangoo dëjju aduna nga woon aduna ginnaaw nangoo jàkkaarloog suñu borom gëm yàlla nangoo liggéey xiif sonn faj aaju jaami ci loolu lay àndal ngati boo koolee nit yu tedd yuñ toon tudd yëpp ci àddina bi ñoom amuñu woon tey nii nit ñi di wax du oto lañu amoon du kër bu rafet lañu amoon xam-xam la ni ñuy toppee nit da ut xam-xam nit ñi toppee la xam-xam bu dee oto bu rafet wala kii am na ñu ko ëppale ñooñu kay la war a topp wala alal. Mhm. man yëkkatuma benn xaalis di ko may ay nit damay faj seen soxla loolu lañ ma toppee. soxla bi kese la loolu laa loolu la ma nit ñi toppee. ci loolu la ñuy jaar ndax euh, xam naa ni yëg nga ko sax Ousmane sonk xam nga Ousmane sonk hmm. dafa politicien la dafa bëgg a laaj réew mi waaye jamono ji moom mooy opposant opposant bi gën a mag ci opposant mais dañ koo jàppoon mu doon wuy tribunal ñu jàpp ko génne ko ci otom dugal ko ci toj otom dugal ko ci oto police bi yóbbu ko këram loolu est-ce que mën na koo tojal ci wàllum gàllaajam ci gàllaajam daal. ay xam nga dugg ci oto police. Hmm. wala dugg ci biir police. lu muy def ci nit dafa bëri. Hmm. am na ay nit yi nga xamante ne surtout forcé dañ koo forcé. am na nit yi nga xamante ne bu ñu duggee kaso ñu génn. Hmm. seen biddéew day génn yokk seen wërsëg day génn yokk lu ñu ut ci àdduna dañ koy génn am. am na ñi nga xamante ne bu ñu duggee kaso bu ñu génnee du ñu gudd fan. allahu akbar am na ñi nga xamante ne bu ñu duggee kaso bu ñu génnee seen kabaar yëpp day tëju. kaso dafa am nu muy def nit. dafa am ñi nga xamante ne bu ñu kaso tey génn. Mhm. seen biddew day génn takk bi. génn am ku ci mel Sonko tey bu ko tëjoon nu muy ci moom. moom kilifa la. waaw bu ñu ko tëjoon mu génn. Mhm. kabaaram day génn baax. Ah. loolu du yàq dara ci kabaaram ci biddeewam du yàq dara ci biir biddeewam. moom am ci lu nekk kon du ko est-ce que lu mu nekk noonu. waaw du yàq dara ci biir biddeewam amul dara lu mu mun a yàq ci bidéewam. moog ma mbay ñaa gëm-gëm mu génn ceeg ndam. waaw xam nga man ñooñu noonu. ngati ku nekk maa ngi jëflanteeg yow. moo waral du ma nangu wax ci nit. man ñëpp ñoo yem ci man. ngati ku nekk ci ñoom maa ngi jëflanteeg yow. mais sëñ bi yoon dafa am nag. dafa am dafa am loo xamante ni. xam nga ne man ci comme niñ ko panam panamee dugal ko ci oddu sëñ bi loolu. xam nga man man kaw ma ci politique mun du ma def politique. waaw man su ma liggéey yëpp xay boo ñëwoon fii nga nekk politique. Mhm. ngay wax dama lay waxal su soxla ma liggéeyal bul wax ci keneen Hmm. waxal sa la li nga bëgg lii ma liggéeyal la moom bu ñëwee keneen ñëw xay ñoom suñu bokk lu ñu wut ku hmm. nekk ci dama lay liggéeyal mais Ousmane Sonko dañ ko hmm. dañoo tëj di dossier mag Adji Sarr dossier mag Mame Mbaye Niang ba le 16 war nañoo dem procès man loolu moom dañ leen di ñaanal yàlla ñoom ñëpp ku ci nekk yàlla dimbali ko tan mu bañ am saafaan yàlla def ci ndogu set gëm nga ni nar nañ koo tëj yàlla xam na ne koolu ma ci wirde lu ma ko liggéey lu ma ko du te du ma du ma xam dara ci kabaaram mhm. man du ma am sumay taalibi ñi nga xam te ne ñu ngi bitim réew waaw ci seddaay bi ñu ngi yëkkati seen alal di ma ko yóndee sonn ñu ne am ñu nekk fii di yëkkati ay oto di ko jënd di ma ko indil mhm. ñu ma tabaxal ay kër mhm. ñooñu noonu ci ñooñu laa nekk nekkuma ci keneen ni ma leen di wirtale yàlla yokku seen kabaar ci loolu la nekk li yàlla di jëmale seen kabaar ci kanam. sëñ man Ousmane Sonko nag yitteel nañu de. ndax est-ce que 2024 mën naa nekk président est-ce que 2024 2024 soriwul yàlla xam ne kaw ma ci lu bëri loolu moom kaw ma ci koolu ma ci kaw ma koolu ma ci kaw ma ci boo laajoon nag ci ay nit. xam nga fii nii yu ma xam dinaa la ci wax. waaye loolu kaw ma ci coupe du monde bi fii lañ ko fii lañ fii lañ toogoon. Mhm. nga ne ñu Sénégal du passé quart de finale du dem quart de finale huitième sax bu fa yeggee fa lay yem ñu dem huitième de finale toog jamono ji kon mën naa ni seet gis am nga ci lu wér loo xamante yaa ngi koy gis. loolu jëflanteeg jëflanteeg jëflanteeg nit mooy tax ma wax ko man bu doon moom damay jëfalante jëflanteeg moom. Hmm. bu tax woon mu ñëw fii ni ma xool ko. xool lu nekk ci moom. waaw bu doon dafa indi milliard ni dama koy ne li ngay ut doo ko am. su ñëwoon taxaw tamit bu dee lu muy ut da koy am. Hmm. dama koy ne teel sa alal li ngay ut da nga koy am liggéey la nga am ko. boo ko amee nga fayam. man damaa judd fii suma kër fii rek kilifa bu ci Abdou Diouf boo ñii kilifa bu nekk man gis naa ko ci àddina fii fekk nañ ma fi. Mhm. ba ñu toog nii ba ci Abdou Diouf. kilifa bu nekk man fekk na fii suma kër pap ñun dañoo tàmm kilifa xam nañu luy kilifa. Mhm. xam nga ay wàllam nguur du ci Ablaye Wade du ci Abdou Diouf du kilifa benn bu ñuy tudd fii ci réew mi. bu fi ñëw du sëriñ du taalibe ku ci nekk ñëw nga fi. ay sëriñ yu mag kilifa man su ma am day def ziar adduna bi yëpp xam na ko. Mhm. li may def nii dama ka doon dama kaa xam. li nga xam ne xaw ma leneen lu dul doonu ma leneen lu dul lii amuma lenn lépp lu ma def leneen dama ko nag ñëw na fi Ousmane Sonko war nga koo ñaanale mu doon ay ku ku ku ci ku ku ku fi yàlla teg. Mhm. ci wàllam président. Mhm. ku ci yàlla teg yàlla na ko yàlla jig. amiin yàlla na ko jig mu gën ci Sénégal génn ci réew mi. Mhm. mu defal réew mi jàmm. mu yokk réew mi mu yokk diine bi. mu yokkal aada bi. loolu lañ ci bugg. ku fi yàlla teg yàlla na ko defal jàmm ñun kat ñooñu du ma wax man du ma wax ci ay nit. waaye rëgg wax nañu waxtaan ci ay kam-kam. sampoon nga fi mbër mu nekk roi des arènes dëgg la loolu jàll na jamono ñii mën naa ni loolu xewi na sax ndax jamono ji rëg-rëg Sa Thiès dañoo xew mhm. jamono ji kan nga ciy ñaanal am na mbër mu fi ñëw man samp na ñetti nit def leen roi des arènes nit waaw bu ñuy dem bëre foog ñu ñëw ba fii nii ma samp leen mhm. def leen roi dañ doon fay par weer ñooñ bu ma paree ci ñoom mhm. damaa wax dootuma liggéey ci làmb ku nekk ku nekk fi sa yaakaar nekk ak ki ko yaakaare ci foofu ngay jubal waaw lamb kam loolu moom ku nekk sa yaakaar fu mu nekk tan xam nga yaakaar la tan mun nga ñëw léegi-léegi yow kii nga yaakaar nga yàq jàpp moom moo gën a nekk sëriñ ci àddina bi nga yaakaar ko kële dem yaakaar keneen mu ñëw mu daanee la nga ti lamb lu koy nekkul sangu yu ñuy sangu noonu wii ngay gis koppoo kii bi yëpp lépp ci course bi la ñoom lu ñuy def noonu yëpp bu ñu ko lu ñu koy def fii lañ koy def bu ñu ko defee fii ni mu jeex hmm. ñun balaa lamb bii di am weer dinañ xam di nga daan wala doo te bu ma la waxee doo daan hay bu nekkee da maa jox million nga nekk suma taalibi dama lay naan demal waaye da ngaa daanu su ma la ne dangay ngay daanee jarul ngay sangu ay sangat ni nga li may def fii lay toog def waaye nee naa dama bàyyi lamb. waaye dëpp làmb ci dernière minute nga dëpp làmb loolu dégg naa am na am na am na noo ko daan defee. lamb lu ma ci nekk laay def kam-kam lii dama ci dama ci foow lu ma nekk laa ciy def lépp li nga xam te ne. man dëpp lamb mën naa am ci man lii laa foowee. man ci lii laa foowee ci lii laa juddoo ci lii laa màgg. lépp li nit di def ci kam-kam man maa mun naa ko def ci kam-kam. mun naa ci def lu ma neex. Mhm. ngati xam nga nekkul damay wax ndax nit ñi. waaw munu ma weesul nit ñi doomu fay dërëm. dama lay liggéeyal ba nga gis nga toog a fay. waaw xam nga léegi nag kon man li may wax waxuma ndax di uut ay nit nga gis nga kër gi. gis naa bopp jasit de. gis nga kër yi bopp jasit boobu noonu dafa am lu muy lu muy lu muy def loolu ci wàllum góor lay dem. góor. Mhm. lii ku dem ba mu nekkutoo góor. kenn yaakaar la nekkatoo góor. Mhm. sa ngóor jeex na. Mhm. yaa xam at yi nga am. yaa xam at yoo at yoo munta am ci àddina boo demee ba yow sa wàllu ngóor mu jeex. Mhm. moom moom moom moom moom lay fajee sa ngóor. di nga bu dee doo doo doo tàggoog ngóor. bopp jasit bi bopp jasit bi moom laa koy liggéeyee. dama lay liggéeyal ba gis nga fay. sëñ bi foog nga tàggatoo tey. waaw jërë ngeen jëf man kontaan naa ci yéen bismillah. Euh, ñëw ngeen ci jàmm yàlla na leen yàlla delloo ci jàmm. amiin waay li ngeen di def yéen tamit. waaw lu baax la. Mhm. ngati dugg ci àll bi. Mhm. di dem di génnee xam-xam di won nit ñi xam-xam am na. Mhm. loolu dara génn ko. ngati nit yaa ngi yàq xam-xam ñu ngi ciy def lu nekk. di ci lekk ay alalu jaambur. di ci def ay théâtre di yàq ñooñu noonu nag mhm. xeekuñu ak nit ñi xeekuñu ak kenn yàlla la ñuy keekal te yàlla mooy faj loolu dëgg la ngati xam-xam boo ko yàqee di war nit ñi di lekk si seen alal mhm. loolu defoo kenn sa bopp nga ko def mhm. nit lépp looy def boo yàkkamtiwul loo lekk ci àddina sa wërsëg la looy def tamit fekkal nga jàng ko ba mun ko ci ngay mun a rafet ci nga ci mun a tiitaru waaw xam-xam boo tarbiné nga jàng nga jaar fi ñu ko war a jaare adduna bi yëpp dina la fekk si foo toog jarul ngay gaddu su saak di voyage toogal fi nga toog ci digg àll nit ñi yëpp dina la fekk boo xoolee si ñoom Serigne Touba mhm. Alhaji ji Sy si mhm. Cheikh Oumar Foutiyou Tall mhm. ci ñoom ñëpp ba ci suma maam ñoom ñëpp fu ñu toog lañ toog adduna bi yëpp fekk si leen foofu boo yoree xam-xam nga wóolu sa bopp jarul dem fen man du ma dem fenn du ma voyage fenn kii ma soxla fii nga may fekk Allahu akbar fii fii ma toog ni fenn duma ko dem xam kam boo ko amee da ngay toog fi nga toog di faj ja soxla jaami jar ngeen jëf mi ngi noonu macha allah ngeen amoon ko moom euh, Thierno Bokar Diallo mën naa ni moom mooy sëriñ boo xamante ni dangay ngay déplacé wu ñëw seet si ko ah nekk taalibeem waaye booy ñibbi moom moo lay jox paas bokkal la moo tax paas bi ñu ngi koy xaaraat tey. mi ngi noonu mbokki internet yi tey euh, sëriñ bi gisoon gisoon nañ gëjoon gannaaw ba ngeen ko gëjee gis ci yi mu nekkoon xat-xat yeeg ci tëju beeg yooyu ñun sax jàppoon nañ ni dafa voyagé waaye xëy na lii la yàlla defoon tëju bi moo taxoon ñun ñu jàppoon ni rek dafa voyagé moo tax ah waaye tamit euh, liggéey yi muy def lu ci mel ni ngóora lu ci mel ni leneen ak leneen ak leneen képp koo xamante ni am na ci problème rek boo ko woowee di nga ko jot wala tamit boo ko jotul nga bàyyil ko message ndax ñi nga xamante ni ñoom ñoo koy répondre ay appel am ak yooyu noonu xëy na duñ fi nekk ak yooyu noonu moo tax waaye képp koo xamante ni rek jëflante na ak yow di gis résultat waaye tamit euh, ñi ngi leen di jaajëfal di leen jox di daje ëllëg seen beneen émission jërë ngeen jëf